jërëjëf mbokki internet yi bàyyi xel MPROD TV mbokki tey la saltige de kër Laayeen Ramata la ñu fekk si mbokki fii mooy xolu Saalum tey ñi ngi diggante kumaan fekk si jëmm joo xamante ni lam waxoon sonkoo ci début ba lu ko raw la wax tey bi mu ko waxee dama dar sama gémmiñ ma ne kon lii yëpp dal na ci sonkoo mu ne ma kaay ma wax la ko benn par benn détail par détail ak ki def yëf yi ak fi mu ko tàmbalee ak li tax Sonko nekk ci situation yi euh, jëmm la nag ju doy waar bu ngeen ko gisee des fois mu yëg ci kaw garab gi baa ngeen gis ko mu sëgg ci dex gi xamuñ lu muy def ci dex gi nag waaye tey dañu ko leeral euh, sëriñ Mor Siñaan dañ lay bàyyi nga nuyu askan wi ñu soog a waxtaanee li xew ci dëkk bi. auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ginnaaw bu ñu sante sunu borom bi tabaaraka wa taala ci nu mu gën a waree julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi ci nu gën a sellee wa ma tawfiq illa billah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, sëriñ bi ku ne xam na ne Saalum Saalum yi amuñu caaxaan mais ngay boroom xam-xam di fi liggéey liggéey bu doy waar ba nit ñu tuddee la le saltigué de Saalum euh, tey euh, bokk na ci liggéey liggéey mooy xam nit ki ay gàllankooram ba mën koo dindi ci moom ñu bëri ne sëriñ Mor Siñaan Sonko bépp gàllankoor bu am mën na koo jindi waaye ci kaw eh, ci kaw boobee bëgg naa nga leeral ci mooy lan. laa ji dégg li nga xam ne dañ fas yéene leeral. jëm ci mboolem liggéey boo xam ne dañ koy liggéey. Mm-hmm. lépp rek li ñuy liggéey nag ci xam-xam lañ koy teg. Mm-hmm. xam-xam yi ne dañoo bëri te wuute. Mhm. mboolem doomu adama yi. Mhm. ak xam-xam yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo ci réew yi nga xam ne dañoo dende sax. Mhm. def na différence ci lu bari. waaye li am solo rek mboolem koo xam ne ab sëriñ nga ñu lay woowee ab sëriñ. da war a gëstu mboolem fànni xam-xam yëpp. maanaam nit ki ni nga war a ba yeewu ci xam-xam bu weex. noonu nga war a mën a fexe yeewu ko ci xam bu ñuul. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na wax ne xam lépp moo gën réere ko. kon nag ñun boo gisee waxtu wu nekk ñuy génn di dugg ci àll yi di dem ci yeneen réew yoo xam ne yu fasantikoo ngir yokk suñu xam-xam loolu kese la ndax jamono toll na foo xam ne nit ki bu fekkee ne toogoo si baatin bu wér yàgg-yàgg ci suuf rek nga jëmaat ndax tey bëri na ñoo xam ne ñoo ngi leen fi doon dégg tey ñoo ngi ni ken déggatu leen loolu nag dara warulu ko lu dul ñàkk xam-xam bu wér mm-hmm. baatin nag lu am la Mm-hmm. baati na képp koo xam ne jàngo ko dëgg-dëgg jàng mm-hmm. lépp loo xam ne yaa ngi koy wax ci avenir doomu aadama bi mm-hmm. dara du ci deñ lépp loo xam ne it war naa xew ci àdduna bi suñu borom tabaaraka taala mën na koo xibaar nit borom di xibaaree doomu aadama am na yoo xam ne jinne moo leen di xibaar am na yoo xam ne nag xeeti istixaara yoo xam ne doomu aadama bi tamit su ko xamee lépp lu war a xew ci kaw suuf mën na ko xam mbirum Ousmane sunko mi nga xam ne yaa ngi koy wax nag yàgg naa cee wax ndax dama gis ne dañ ko jékku dëgg dëgg jékku nak ci mbirum baatin loolu nag dara waraloo ko loolu mbiru sacrifice yoo xam ne def nañ ko ci mbir yi nga xam ne mbirum tuur deret la gis nga doomu aadama dafa am loo xam ne saa yoo ko defee sëf ko ngir jëmi boppam xeeti sacrifice yooyu nag la fiig defaatul xeeti sacrifice yu mel noonu ngir tuuraat ay deret delloo tooñ dafa am loo xam ne delloo tooñ lañ ko tuddee tooñ dañ koy delloo nit ki da am loo xam ne bu la ko sànnee foofu pour nga jëlaat ko foofu nga jëlaat lu toll noona sànniwaat ko ko ngir tooñ ba yem dégg kon nag li ma bëgg ñu xam ko mooy ku mat a dimbali la jëm ci wàllu wàllu ñaan yàlla waaye nag dimbali bi moom dara gënu cee gaaw mbirum sarax waaye dara gënu cee gaaw tamit lu mbirum tuur deret ndax sacrifice bi ñu ko def ba teg ko li nga xam ne yenn nañ ko te àttu nañ ko ko ba boole waale ci mbooleem askan wi nga xam ne ci Sénégal lañ am na ñoo xam ne tey jii dañ doon wax ne bu Ousmane Sonko bu ñu ko jàppee fas yéene nañu joxe seen bakkan waaye tey fañ toog sax mënuñu faa jóg kon nag loolu baatin moo koy def te dëgg gis preuve ci ñaan ndax am na ñoo xam ne dañoo wédde dëgg dëgg ñaan dañ koy wédde mhm. na ndax est-ce que ñaan amati na moo tax nag damay ñaan képp koo xam ne yow mos ngaa dem ci fukki dëkk wala ñaar fukki dëkk wala fanweeri dëkk mhm. wala ci ay réew yoo xam ne wuute na te mosoo gis preuve ci ñaan mhm. daggal sa yitt nga fekk ma kër lañ ramata moom wan la dëgg-dëgg baatin boo xam ne insha allahu boo fa jógee di xam ne ñaan yàlla fa nekkoon ba démb ak bërki démb ba tey mu ngi bu ma liggéey jële ko ci dëkk bi jox bu ko sangowee ca saa si résultat li yaa ko wax. man maa la ko wax te maa ngi koy dëggalaat ci caméra yii di tàkk mboolem doomu aadama boo xam ne déggante nañ man ak yow nga wax ma sa aajo wala boog man ma sàkkoo xam lan moo nekk ci yow ba wax la ne na naa ko dindi boo déplacé woo insha allahu taala gàllankoor yi dina dëñ ba set wecc bu fekkee da ngaa bloqué ci wàllu wërsëg man dinaa la débloqué ba sa wërsëg bi di dox wërsëg wi nga xam ne suñu borom bi namm na ko ci yow insha allahu taala dara mënul dox sa diggante loolu nga jot ci nit da nga gis koo xam ne dina sonn suba ak ngoon guddi ak bëccëg te du mën a am dara mooy boloke liggéey nag mën naa boole boloke wërsëgu doomu aadama cat man naa wërsëg mën naa boloke wërsëgu doomu aadama rab man naa tëj wërsëgu doomu aadama waaye yii yëpp bu mu ci man di doon man su ma la xamee xam sa tur waajuru jigéen dinaa la defal li ñu tuddee istixaar ruuxaaniya nga xam ne ñeewuma ci ku yàlla bind man xaanu doomu aadama bi dama koy raslu ba jàpp ko lépp loo xam ne nekk ni ci nit ki daf ma koy xibaar muy avant ak li nga xam ne mu ngi ci maman waxaat ko lépp loo xam ne taxaw na ci kanamam te lépp loo xam ne dem na ba yegg ci insha allahu taala dina ne lii suñ moor si ñaan waxoon na ma ko mm. doomu aadama bi yëpp lay xool wax ko ko nga xam ne bu ci noppee insha allah mën naa bañ a faral di demati ci ay sëriñ di seetlu ndax lépp loo xam ne yegg na ci rek dina xam ne lii luñ ko waxoon la waaye lépp loo xam ne tamit boolekk na ci ay mbiram dinaa ko waxaale solution boo wax ne bu ko defee insha allahu taala mbir yooyu yëpp dina sens ci kàttanu yàlla mooy kon li may wax ci mbiru seet rek mantu ñàkk ci mbir yi waaye man Mor Signane ñëwuma ci ko yàlla bind ci kaw suuf insha allahu taala sëriñ dégg euh, sëñ Mor Signane euh, bokk na ci li nga xamante ni dëkk bii da faral di ko faral def sax lu bëree bëri di ci faj ba tax ñu bëri tuddee la le saltige de Kër Laayeen Ramata euh, saltige rab mi ngi yàq waaye rab nga ne man dama koy dama koy dama koy saafara rab képp koo xam ne nekk na ci yow. ak lum la man di yàqal. man Serigne Mor Signane su ma jàkkaarloo ak yow dinaa ko dindi ci moom ba mu set wecc. li tax ma koy mën a dindi nag dafa am mbir yu rab yoo xam ne rabi cosaan la. ñoo xam ne dañu doon liggéey ak say maam. la nga xam ne seen i maam dañ ko doon def mu nekkoon kóllëre seen diggante ak ñoom leen di man di sàmm waaye di man di jàppandal seen mbir yu bëree bëri. Mm-hmm. léegi nag mbiru cosaan yooyu ñu bëri dañ koo bàyyi. Mm-hmm. léegi nag loolu su amee dañuy gis na rab yi dañuy fayeeku ci famille bi mm-hmm. dañuy gis famille yoo xam ne dañ ciy yàgg ci kaw suuf nekk ay jigéen duñ mën a am borom kër mm-hmm. nga gis ñoo xam ne tamit ay góor la doon duñ mën a am ay soxna mm-hmm. fekk loolu rab yi cosaan yi ñooy def fiiraange seen diggante ak yooyu mm-hmm. dañuy rab yi cosaan yi dañuy dem ba bëlëkee tamit famille boo xam ne ngir nit am ca dara a am dara dara lépp loo xam ne sumb nañ ko tamit ngir mu sotte dafay nekk loo xam ne lu jafe te képp koo xam ne am nga rab dëgg-dëgg di nga xam ne yow mi rab a ngi ci yow ndax rab moom li muy bëlëke ci nit liggéey mënu ko cat mënu ko ci doomu aadama lépp loo xam ne sumb nga ko daf koy yàq da ngay dem ba yow ci sa jëmmi bopp da ngay mere sa bopp da ngay dem ba mu yàgg da ngay jépp sa bopp ci loolu sax da ngay gis ne dafay rab dafay dem ba yóbbu doomu aadama bi mu nekk nit koo xam ne ku sànk lay doon tux naan sàngara taxawaaloog yo ci bëree bëri fekk na loolu jaaxle gu def la ci jëmmi doomu aadama bi nga xam ne da koy tëj xelum doomu li ci a métti nag mooy doomu aadama bi la fi rab nekk ci moom nekk rawaw cosaan boo xam ne dafa nekkoon ak say maam la waroon seen diggante ak yéen du ngeen ko def moo xam mbiru tuur la wala ya ci aju am na yoo xam ne nit ki mën na ko def tàqali ko ak ñoom ba yow amul lor boo xam ne dafay man a jógee ci rab yooyu ñëw ci yow ndax mbiru jinne li tax mu doy waar mooy ñoom suñu borom daf leen a daf leen a defal ñu mën a gudd fan tey jinne man naa ànd ak sa maam ànd ak say baay ànd ak sët loolu jinne suñu borom may na leen ko ndax koo xam ne dafay dund juróomi téeméeraat juróom benn téeméeraat juróom ñaar téeméeraat kon ñoom boo gisee am na yoo xam ne xeetu xeex lay doon mm. dañ gis famille yoo xam ne seen waajur yi wala seen maam yi dañ doon faj ay rab léegi nag ñoom daan nañ mën a aar seen bopp mm. aar seen njaboot waaye dañuy gis ne jafe-jafe bi dafay wàccaat ci sët mm. ndax ñoom seen gudd fan moo waral loolu léegi nag moo tax yi ñuy yàq ci wàllu famille yi moo tax am na loo xam ne sax kenn mënu koo leeral dëgg-dëgg leeral waaye daal rab képp ko xam ne nekk na ci yow incha allahu taala boo ñëwee ci man wala ñu déggante la ma lay wax nga yoon wi ma lay wax nga jaar ci incha allahu taala dinaa ko dindi ci yow ba mu set wecc lépp loo xam ne daf la ko doon yàqal tamit dootu la ko yàqal te it bu dañee ci yow da euh, gis naa fi tamit sànq nga woon na benn garab nga ne ma garab la bu weex boo xamante nii ku ko jëfandikoo seytaane euh, làmmiñ ak lépp lu bon du man ci yow dara yaram bu mu xasalaal day tooke yaram woowu gis naa sunguf soosu sànq waaw sunguf soosu sunguf su doy waar la ndax liñ koy mooñaale dafay yegg ci li nga xam ne mooy karawu gaynde mm-hmm. loolu mooy tax bu dee mbirum jinne la sax du la ñeme mm-hmm. li ma ñaale ko li nga xam tamit mooy nekk karo sumeekum moom daf ci bokk ak xam ne dañ koy def ci mbirum xay xay mm. garabu am nu ñu koy boo koy jënd tamit da nga cay daaj ay puso lim la nag 99 puso xas xay moomu ngay jël boole loolu ak li nga xam ne koy bind ci tabat yadda ku ne xam ne ne tabat yadda amul lu ko gën a doy waar ci wàllu kaaraange mm. ku ne xam ne ne tabat yadda amul lu ko gën a doy waar ci wàllu toj liggéey mm. ak lim ci ay doomi poftan ak lim ci ay reeni poftan yoo ne bokkuñu loolu képp koo xam ne sungu soos am nga lépp lu kon ci sa yaram te luy dund def ko nekkee rab jinne ak saytaane wala doomu aadama da koy raxas yow ba mu set wecc mm-hmm. waaye lépp loo xam ne dina jógati na ngir jëm ci yow dafay am jafe-jafe. loolu nag moom incha allah taala képp ko xam ne diggante na ba nga am ci su ma la ko sangee fasaase. yow ci sa jëmmi bopp ji da xam ne li nekkoon ci yow lépp dañ na ba set wecc. moom sunguf soosu sunguf si nag sunguf su doy waar la sunguf su compliqué la waaye bu fekkee nit koo xam ne dafa rax saytaane sax bu ko la moom dafay jëfoor. Mhm. moo tax nekkut kenn ku ne lañ koy jox am na ñoo xam sax amuñu fitu sax di ko laaj ala kulli ala ji dégg. Euh, euh, am na garab booy joxe tamit euh, nit ki da koy naan mais day dindi mboolem jàngoro bu mu fekk ci yaram bi lu loxo def wala lu seytaane def def wala lu bët def waaw loolu ba tey dafay leeralaat jëm ci biiru saytaane rek mm. xam nga seytaane ni muy defee toogee ci kaw yaramu doomu aadama mu mm. nekk lu mel ne ay taab mm. wala ay néewi néewi yoo xam ne da ngay dem hôpital di wut lu ko saafara du man a nekk noonu lay defee tamit loo xam ne ci biiru doomu aadama la koy nekk maanaam benn mën naa nekk aw ñam benn mën naa nekk loo xam ne ci weñ lay doon wala dara coraxaan la loolu mu nekk sa biir biir bi nag loolu suñ fekkee liggéeyal nañ la ko ñun buñ la ko joxe nga naan ko maanaam mbooleem loo xam ne lu bon loon lu nekkoon sa biir bi da koy wàcc même bu fa ñaar fukki at wala fanweeri at sax waxaale lu bon ci ci boppam. dafa am yoo xam ne nit ki mën na ko lekk. ñaar fukki at ci kanam ci ginnaaw. mu mu doog ko daaneel. Mm-hmm. ndax dafa am yoo xam ne tooke lay doon moo tax am na yoo xam ne bu ñu ko defalee ko wàccoo sax. Mm-hmm. dañuy gis ne dafay mel ne ci bi la. Mm-hmm. ñun nag bu ñu la dindeeloo loolu moo xam noob la am na noob yoo xam ne tamit noob yu bon la. nit ki bu ko lekkee yàgg yàgg dafay gàllankoor ci biiram. dañuy gis ne biir bi dafay jékki-jékki di néew yi. dañuy gis ne am na ñoo xam ne foo leen fekk seen biir dafay métti bu ñu demee hôpital tamit bu ñu ko scanner duñu mën a gis dara fekk ne yenn yi nga xam ne tamit seytaane moo ko def doomu aadama bi lekk ko yooyu nag su ma la ko defelee man Serigne Mor Signane da ngay bu nekkoon fukki at la ci ginnaaw yi da nga koy génne yow sa jim bopp tiimal ko sa bopp incha ngi noonu képp ku ko ci woo ko jot euh, Serigne bi euh, dëkk bi xam naa ne nopp bokk na ci li ëpp ci li ngeen liggéey te mën nañ ko lool muy jàpp nit rek noob ko dañuy wax naan village su kër Laayen Ramata tur woo fa yóbbu kookee du mën a bàyyi borom euh, xeetu noob tamit yaa ngi ciy def lu doy waar. nopp moom li ma ciy wax rek lenn la. amut benn mbindeef boo xam ne yaa ngi dox ci kaw suuf. Mm-hmm. ma bëgg laa nopp te du ma la mën a nopp. Mm-hmm. loolu nag fu leer laa ko teg mm-hmm. li muy laaj. ak jot gu man di laaj ak sacrifice yu man di laaj man dina ko def ku nit mëntu jàpp ci kaw suuf suñu borom sàkku ko lenn nag mooy am mooy nit mën na am kaaraange dem ci téeméeri sëriñ di jàpp bëgg jàpp benn doomu aadama du jàpp mm-hmm. wala boog condition yi nga xam ne rawaxaane nit ki daf koy laaj ngir nga mën ko jàpp doo ko def mm-hmm. am na nit yoo xam ne tey ji bu fekkee da leen bëgg jàpp seeni mbir fuy tàng rek nga koy def loolu dafay dépendre nag ci li nga xam ne ci tabbixam bi mu bokk mm-hmm. ndax bu fekkee nit ki tabbixam naar yu la faw nga def liggéey bi ngay liggéey suul ko foo xam ne waxtu wu nekk dafay tàng kooku kenn mëntu dox sa diggante nga jàpp ko wala waaye boo ko defee noonu tamit am na deret yoo xam ne da nga koy tuur am na yoo xam ne seen i mbir ci wàllu rawxaan ya mën naa laaj béy mën naa laaj xar mën naa laaj nag loolu li ma ci jubloo wax rek mooy nit ku nekk ngir nga sacrifier ay mbiram la muy laaj boo ko defee da ngay am la nga bëgg ci moom am na ñoo xam ne seen i mbir nag suul ko foo xam moo xam géej la wala dex la wala taatu robinet boo xam ne dafay tooy ndax lan seen tabixa maa iyu la am na nit yoo xam ne soo leen bëggee noo faw luy yaanu nga koy def maa mën ngaa dem ba ci kaw garab nga jël fa téere bi nga takk ko fa muy yaanu waxtu wu nekk loolu mooy tax nag doomu aadama bi nga xam ne tabbi xam xawaa la boo ko defee incha allah taala dara mënta dox diggante meg nga jàpp doomu aadama boobu kon nit ki ngir nga jàpp ko dafay dépendre ci tabbi xam bi waaye nit ki ngir nga jàpp dafay dépendre ci li nga xam ne mooy rawaan yam bi ndax doomu aadama lii tax nit naqaree jàpp wala lii tax doomu aadama koy xool ay mbiram doo ko mën a gis lool ci rawaan lay dépendre te doo nit ki nag bu fekkee rasul nga ba xam rawaan yam bi am na loo xam soo ko defee da nga koy a niiwal li koy mën a def nag mbirum sarax lay doon mm-hmm. doole rawxaaniya waaye gis nga doomu aadama bi nga xam tamit dafa fonk saraxam dëgg maanaam pouvoiram la rawxaanam di am pouvoir boo xam ne nit ki ngir mu bëgg koo jàpp sax amaana mën na ko bañ a jaral sëriñ bi nga xam ne mooy liggéey loola ndax loolu dafay tax nit ki sëriñ sax bu jógee jëm si yow dafay am ay jafe-jafe dañuy mm. gis nit sëriñ boo xam ne tey dafay jóg xëy du guddi mu nekk ci nit xëy am ay jafe-jafe ci wàllu yaramam wala mu xëy am ay jafe-jafe ci wàllu njabootam wala mu xëy am jafe ci wàllu juróom na nga gis sëriñ boo xam ne am na loo xam ne saa yu ko songe dafay am ay gàllankoor moo tax sëriñ ci jëm boppam li ñuy wooyee kaaraange dëgg-dëgg sëriñ moo ko war a a xam moo ko war a njëkk tamit waaye bu fekkee nag nit ki lay tax doomu aadama bi dara du la mën a rëcc ci nit ki ngir nga mën a jàpp nit ki wala ngir nga mën a yëkkati doomu aadama wala ngir nga mën a fay doomu aadama doomu aadama képp ku am dëgg-dëgg xam-xam mën ngaa yëkkati nit man ngaa fay nit mën ngaa ubbi doomu aadama mm-hmm. loolu nag li ñu xelmul fëlëg ñi gën koo ràññee ci réew mi xam xamu xelmul na jóom mm. du ma ko tàyyi bépp gune goo xam ne ab sëriñ nga di ñëw fii mm. la ma lay tuusee lépp ngir nga jàng ko war koo mën a xam xelmu mm. fëlëg la ndax boo ko xamee moom yàlla moo lay defal loo xam ne ci doomu aadama da képp koo xam ne wax nga ak moom moom ci jëm bopp da ngay dem ba yéem ko te lépp nag dafay dépendre ci xam-xamu biddiw xam-xamu biddiw tey bëri na loo xam ne nasaraan yi ñu ngi koy wax loo xam ne ñëwagul suba day taw wala suba dina ngelaw loolu lépp ci biddiw rek lañ ko mën xamee muy elmul fëlëk kon nag dëgg-dëggee elmul fëlëk boo ko xamee nit ki lépp loo xam ne wax nga ko rek kenn moom du la xeeb ci wàllu li xam ne wax nga tamit ci wàllu ñaan yàlla ne ko noonu lay demee noonu la cee tegee bëtam ala kulli yàlla alaa ji euh, mais li ma jaaxal mooy lan moo tax saalum saalum Euh, tukki yomb ko li ñu bëggoon naa nga ñëw ci secret surtout seen zone bi zone de commande bi dend ak Kaffrine kër surtout kër Laayeen Rameta. sëriñ bi dafa am secret yoo xam ne secret yu wér la. Mhm. mag ñi nag buñ koy liggéey li ci ëpp comme moment bi nga koy mën a am muy waxtu wi ñu toll. Mhm. mooy ñax goo xam ne dafa tax dafa sax ci kaw garab. kaw gis garab yoo xam ne kaw gi dafa am suuf. maanaam waaw léegi tobb yooyu soo ko amee nag mm-hmm. am na lim boo xam ne dañ koy dañ koy liggéey ci Muhammad Rasulullahi wala si na maawo léegi miim yooyu dafay toll ci ñaar fukki miim ak ñaar 22 miim mm-hmm. léegi boo demee ci li nga xam ne mooy alam nasara tamit xorof yi dafay baat yi dafay toll ci ñaar fukki baat ak ñaar mm-hmm. mu nekk 22 boo demee ci suyéene li naasi tamit kasaaliki noonu la 22 la bu fekkee nag nit ki la koy liggéeyal bu la neexee baatu alam nasara boo def da nga ciy teg baatu suyéene ci suuf waaye bu fekkee nit ki li nga koy liggéeyal maanaam aaju yi dafa daar daar ngir mu génn réew mi maanaam doo defati par baat bu dee alam nasara saar bi yëpp ngay dugal bu dee suy yëpp ngay dugal léegi nag boo ko booleeg tobb googu nga xam ne maa ngi la wax nga sangoo ko juróom-ñaari fan dañuy wax ne 22 jours dootu ko defaat ci réew mooma maanaam fa nga bëgg a dem dara mënu dox sa diggante am xaatim boo xam ne daf koy ànd ak musalas bi ci bayti mi nga xam ne fa la bëgg a dem mm-hmm. dara mënu dox sa diggante ak loola gis nga xaatim ñi nga xam ne xam nañ ko dëgg-dëgg mm-hmm. te jàngale ko musalas mu xam mu xamas mm-hmm. lépp loo xam ne dañ ko bëggoon di def ci doomu aadama dañ koy def maanaam xaa xaatim xaatim xaatim du échec li ci danger nag mooy nit koo xam ne daf koy liggéey te xamu ko mm-hmm. boobu moom am na yoo xam ne sax mën ngaa bañ a gàllankoor sa waaye na la leer leer yàlla ne yaa ngi rey wala yaa ngi gàllankoor ñoo xam ne yaa ngi leen di ñaanal mm-hmm. ndax benn xaatim bu damm ci doomu aadama ni muy bolekee nit ki ak ni muy tëjee nit wala ni mu koy yóbbu ci ay jafe-jafe mm-hmm. dañoo xam ne téeméeri xaatim yu baax sax mën na faa doomu aadama dool du demaat koo xam ne dafay am départ bu baax waaye mu xeeb ne noonu la ay mbiram doon doxee dugg ci mbirum sëriñ rek mbiram yëpp bolekk mooy dangaa dem ci koo xam ne xamul lu bari. wala boog li muy xam ne daf koy jëfandikoo ci wàllu ñaan yàlla ay kamatara la rek. kamatara bi nag mënul passé tey mag ñi daan nañ bind xaatim yoo xam ne dañ koy damm. xaatim mooy tey bu fekkee fi 1919 moo fi a nekk ñu def fi 1920. yow bu fekkee mënoo peese xaatim léegi jafe-jafe dafay am foofu bu fekkee ne yàlla may na la nga jàng xaatim ba mokkal ko mën ko peese wala misaanu huruuf nga mën a peese ay alxuraan bi xam li nga xam ne moom lay peese ci balance bi boo ko boo ñu tamit même bu fekkee kilifaa ko defoon côté mbir yi boo ñëwee dañ ko dañ ko mën a décoder ni nit mën a décoder ci téléphone ak yu mel noonu noonu dañ ko mën a décoder da ngay mën a peese xam ne lii kat lii la wala boo fii daf da ko da koo nëbbu chiffre bii la war a dugal fii wala chiffre bii la war a génne foofu mhm. loolu nag bu fekkee nit ki xamu ko rek danger da ci moom moo tax da ngay gis ne nit daan na nekk ci dëkk mën a ñaan lool mbooleem ko fu mos a dem sa aju faju mu jógee fa ak njabootam nekk fa waaye dañuy gis ne bu ñu fa demee lañ fa daan fekk daaw ñu ko fekk loolu nag li koy waral mooy ñi nga xam dañoo waroon di seen waajur yi ci ba muy dund war a gëstu dëgg-dëgg xam bi gëstuwuñ ko léegi noonu loolu dafay nekkaat gàllankoor boo xam ne waxuma ne day daanu ci si ñoom waaye dafay daanuwaat ci askan bi nga xam ne dañ doon yaakaar foofu ala kulli haal sëriñ bi euh, ñu waxtaanee lenn loo xamante ni bëri na muy euh, jëkkër jëkkër nag yomb na jigéenu saalum saalum secret jëkkër bëgg naa nga ñëw ci xale yu bëri surtout suñu dëkk bee di Ndakaaru da ngay gis ku dem ba am 36 ans wala 40 ans et quelque te du ko takk loolu tamit yaakaar naa ñenn ñi sax gaaf lañ ko jàppee mais fii gis naa ne xale yi sëy yomb na leen loolu euh, ci wàllu ñaan yàlla ku bëgg jëkkër. fii ku am ñaar fukki at moom ku lamb lañ lay wooyee. Ah wala boog wallaahi lancim mhm. ku am fii ñaar fukki at ci tund bi mhm. ñoom ku lamb lañ lay wooyee. Mhm. ndax dafa ci am secret yoo xam ne nit ki dañoo ne sa doom su amee fukki at ak juróom-ñaar rek war nga koo sange nga xam ne moom mëntu am fukki at ak juróom-ñaar te amul borom fii ñu am 16 ans ñu am 15 rek ñoo fi am borom kër pour nga ñëw ci biir dëkk bi xool xale boo xam ne amul borom kër lu jafe lay doon te it loolu dafa bokk ci li nga xam ne mooy sécurité sa njaboot ndax ndaw dafa am foo xam ne bu fa tollee dafay toll ci bunt boo xam ne mën na koo yàqal avenir am ndax façon doomu aadama yi nga xam ne da nga leen di gis ci ay góor yoo xam ne yu bon la ñu doon waaye ci ñoo xam ne tamit dañuy mën a sànk sa njaboot man nag yor naa ci lu wér loo xam ne képp koo xam ne jox naa la ko nga sangoo ko ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dañ ne la lim bi bu diiree ba diiree ñeent fukki fan du ko paase. Mm-hmm. incha allah taala alaaji dégg. Mm-hmm. Euh, ñu waxtaanee lenn loo xamante ni bokk na ci euh, dëkk bi euh, muy coow yi ndax fay coow yomb na waaye fay coow boobu ca laay laajee ndax génne nit ci kaso tamit yomb na. waaw fay coow moom bu fekkee nit ki xam na ci secret yu wér mm-hmm. gisuma la ko gën a yomb ndax daf ci am loo xam ne doomu aadama su ko defee. ci jëm ci wàllu mbay fay coow maanaam coow la dañuy wax ne bu passé vingt quatre heures képp ku ci waxate rek ko repp lay doon mm-hmm. ndax tey bu fekkee mën naa ci joxe benn secret boo xam ne tey ci këriñ lañ koy def mm-hmm. comme da ngay wax ne salaali mm-hmm. fay coow dëgg ci lu gaaw gaaw comprendre waaye nag daf ci am boo xam ne tamit dafa am luñ ciy liggéey tëfli ko ci këriñ wan na këriñ boobu dañu wax ne lu fi këriñ boobu génn na tut jaar ci biiru doomu aadama bi nekkaat ñaar wax jooju ku repp doo nga moo koy tudd am na ci loo xam ne it nag ngir ci jëm ci wàllu fay coow nit ki boo boyalee ab taal booyal ko ba mu boy wala nga taal am ñax ba mu tàkk nga jël saafara soosa nga fay ko ko coow loola ba ilaa yombi dini nit doondu ko tudd kon fay coow moom ci dëgg-dëgg sëriñ xam nga nit mbir mën naa yomb ci yow jafe ci keneen nga gis loo xam ne coow loo xam ne nit mën na koo fay lu lu mat fukki fan wala ñaar fukki fan te du mën a gis ku ko fayal nga dem ci koo xam ne it ci guddi gi ngay dem di ko faylu coow bu subaa kenn dootul waxal jooju wax te boo xoolee tey ñi nga xam ne ay kilifa nekk ci réew yi rawatina politiciens yi lépp lu ñuy def rek maanaam fay coow dañ ko ciy jiital tey ji surtout koo xam ne njiitum réew ngay doon day def lu rëy waaye benn fan doomu aadama dootu ko wax mm-hmm. kon fay coow lu am solo lu ci doomu aadama sëriñ bi waaye nag noogun la amee tamit ci ay secret yoo xam ne mm-hmm. nit ki soo ko liggéeylee doomu aadama tef ko ci jëwam bi dem seete ji nit ci koo xam ne caabi da ko féeti ginnaaw incha allahu taala dañuy wax ne doomu aadama mën na faa a am ci loo xam ne ci ko nit ki lekk ko juróom-ñaari fan dañuy wax ne du ko fa def te suñu borom ba defut mu génn ci ko sa googu dégg na ci loo doon moom faw waaye liggéey la bay doon xam ne ci kurus lay doon nit ki doo koy liggéey di ko def di ko def di ko def am fukki fan lañu ak benn te doomu aadama caabi féeti na ko ginnaaw te du génn foofu moo xam àtte nañ ko wala àtte guñ ko nag waaye nag ñu ngi ñaanal yàlla mbooleem koo xam ne caabi da laa féeti ginnaaw suñu borom génne la foofu incha allah taala alaaji dégg. sax dañoo ñëw rek dëkk bi di sóob di taw yan njariñ nga ñu mën a andil ci ndoxum taw parce que gis naa la nga xuus ba ca dex gi tamit am loo tànk. waa ndoxu taw lu bëri ay secret la. Mm-hmm. waaye la ci ëpp secret dëgg-dëgg secret nag mooy taw bu njëkk ba mhm. man tey ji am na ndox yoo xam ne yàlla xam na ko ñetti taw la ci ginnaaw ñeenti taw ci ginnaaw maanaam ñeenti ndoxi taw yoo xam ne am na ñetti at am na ndoxi taw yoo xam ne am na ñetti at am yoo ñaari at am yoo xam ne benn at la maanaam ndoxu taw bu njëkk bi mhm. dafa ay secret yoo xam ne lépp loo xam ne doomu aadama bi nekk na ci jàngoro bu nekk ci moom mhm. am na loo xam ne soo ko booleek moom dañu naan feebar bu defoon téeméeri at ci moom sax daf koy dindi ba set wecc moo xam tëdd na nag ba mënalutul dara boppam ba doomu aadama bi kenn amatul ci moom yaakaar yaakaar loolu ma lay wax bu ñu ko ko joxee jox ko ko mu naan ko jox ko ci mu sangu ci kenn mënul dox ba doomu aadama boobu mu du jogaat doxi ay soxlaam loolu nag moo xam ne ne liggéey ko def moo xam jinnee ko def moo xam rabo ko def moo xam tamit wér dëgg yaram la goo xam ne maanaam lekk yu bon ko def wala boog loo xam ne ci wàllu santé la ñu koy faj def ay tooge ci yaram wala dara lu mu ci mën a doon daal dañuy wax ne doomu aadama boobu suñu borom dina ko yëkkatiwaat ba mën a doxewaat ay soxlam ala ji dégg. Euh, ñu bàyyi la nga tàggatoo ak a wi lay suivre ci MPROD TV. waaw borom bi wa taala comme na mu waree julliwaat ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam yëpp jàmm fu ñu mën di nekk di ñaanal wuy dawli yi tamit ñëpp suñu borom woy fa suuf seen kaw te dool leen yërmande jërëjëf ci mbokki kër Laayeen Ramata tey lii lañ leen andiloon fii ci diwaanu euh, Saloum mu nekk dëkk boo xamante ni dëkkub xam-xam la nekk dëkk boo xamante ni dëkkub leer la maami jëmm ji di Serigne Omar Sagnane sanc dëkk bi doon fi dimbali jaame yàlla yi kenn ku nekk di bàyyi ko fu ne ca mag ña daan ko fekk ci dëkk bi mbokki nag jëmm ji di ab sëtam yàlla dogal liggéey bi ci loxoom la tege fa maamam yemoon ca liggéey ba mu tàmbalee foofu di wéy gëstu na xam-xam euh, dolli ko li